wa rahmatullahi taala wa barakaatu Moustapha ñoom la Touba dëgg de Sëñ Fall ah, di wax ah, gannaaw bi ñu jullee ci yonent bi ah, sant sëñ Muntaxa bu baax a baax di ñaanal jàmm ñëpp rek di wax ne ñu ngi la ci seytaane di la ci coronavirus bi di sant gaa yi nga xamante ni ñooy waa fédération bi yëpp di sant waa Touba kanam itam sant ñëpp rek ci xeex bi ñu nga xamante ni ñoo ko bokk di ko xeex Euh, nga xamante ni lu doy doy waar la waaye nga waa fédération bi taxaw nañ ci taxawaay bu mat sëkk bu rafet te noonu rek lañuy taxawaale taxawee lépp lu fi jaar liñ song rek daanaka waaw di leen dollee ñaax rek ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax di wax ne gis nañ seeni taxawaay euh, président bi di daaw de Sarr nga xam ne am nañ porte parole am nañ ay trésorier am nañu ay mason ay électricien comme ni ko Saer li léegi am nañ lépp manqué ñu dara ah, di leen ñaaxaat bu baax a baax di wax ne lu mel ni yàlla na bu mu amati waaye suñu amatee ay soxla rek nañ ci jóg taxaw ci ñun ñëpp di wax ne fi ngeen teg seen tànk rek foofu la di sant waa Touba ca kanam itam ndax wax dëgg yàlla ñoom li ñuy def moom leer na nañ mel na ni bëccëg waaw di wax ne ñoo ngi seen gannaaw rek fu ñu xàcc rek bu soob yàlla ñu dóor fa incha allahu ñu ngi leen di tàllal loxo di wax ne daanañ dagg sax ay carte euh, kii euh, chaque fin de mois 1000 francs euh, daanañ ko def waaye danañ ko yokk ñi nga xamante ni daawuñ ko def ci fédération bi danañ fas yéene bokk incha allahu taala ñi nga xamante ni daanañ ko def itam danañ yokk seen loxo bu baax a baax ñu bokk xeex bi te xamante ne tey Tuubaa rek moo wër di ñaanal ñëpp jàmm rek di ko ñaanal sunu xalifa sénéral bi di sant ñëpp rek di tuub bu baax nag ci kàddu yi sàkk laa xeeran wa rahmatullahi taala barakaatu fédération travailleurs de bâtiment Touba euh, ak fépp waaye mën a nekk ci région yi rek ñoo ngi leen di ziar di nuyu sunu coordinateur Cheikh Seck ak mboolem membre fédération bi tey nag dañoo ñëwoon fii ci Touba sa kanam indi fi ay social boo xam ne dañ ko dajal woon ngir jëm ci jàngoro ji nga xam ne ni moo xew ci àdduna bi ngir fagaru ci ñu indi woon ko nag jëndoon ko daal di koy andi fii ci Touba ca kanam muy lu mel ni loo xam ne jëm na ci cat Euh, fédération bépp nag ñu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di wax ñu gën a jàppale bu baax a baax ci gën a góorgóorluwaat ànd ak euh, Touba ci kanam ci liggéey bi di ñaan yàlla yàlla suñu borom subhanahu wa taala génn feebar bi te ñu fexe ndigal yi nga xam ne moom la kër docteur joxe ñu daal koy fa yéene di defee rek te ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jëlee fi jàngoro ji ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, waaw ñuy nuyu waa fédération travail du bâtiment ñëpp fu waay mën ci nekk rek ñu ngi lay kontaane ñu la sant jërë gërëm ci taxawaay bi di sant waa ci kanam tamit di wax ne comme que fasalante nañu ko yéen coloré incha allah mbir mi du yem fii daal nañu fexe ba waa travail du bâtiment lépp loo xamante ni déggati nañ ko ci dëkk bi rek ñu fexe see dugal suñu loxo di ñaan suñu borom nag mbas mi suñu borom jële ko fii ci nu mu gën a gaawee barke Cheikhul kon waa travail de bâtiment jërë ngeen jëf waa Touba ci kanam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu